motax mané le ne lañuy liggéeyal parce que bu len faté gis nga yalla bi mu saké mam adama diggal malaaka yi pour ñu sujjot ñepp sujjot bam dess iblis Yalla ne ko lan motax nga bañu sujjot mu ne ko duma sujjot parce que ki mako gën man safar nga ma bindé te mom ban nga ko bindé yalla dakk ko yalla xalak ko mu mer nak mom iblis na yalla dama lay ñaan nga may ma ben affaire yalla ne ko ok ñaanal mu ne ko damay ñaan nga bay ma ma dund ba kérok ngay dekkil jami biko yalla accordé ñaan bobu ci leen ne sa jaam yëpp dinaa lef dinaa farankulaay ci sa yoonu siraatal mustaqim bi actuellement noonu la ko Iblis di defee mais comme que ñun amuñu pouvoir gis Iblis amuñu pouvoir dégg ko moo tax dafay fabriquer ay nitam façonné leen indi leen yónni leen ci ñun pour ñu dévier ñu. mooy nit ñii mooy genre Moustapha Sy yi genre Serigne Mountakha yi ngeen di dégg ñu naan yow mal xiyam damay romb yàlla romb yonent bi genre Serigne ci nekk Sénégal daal di xotti war ma yàlla di réer ndaw ñi mbooloo taalibe topp leen ñu leen di sànq. ay ndawal iblis lañ ñoom ñëpp xam nga tamit nañu waxante dëgg quoi yàlla mënta rëdd yoonam tuddee ko siraatal mustaqim diggal ñu pour ñu jaar ci yoon boobu yow maa xadi nga ñëw am fit créer sa beneen yoon tuddee ko muridiya wala tijaaniya wala xaadiriya wala axlulaahi di ci woon nit ñi ba noppi bëgg a gëmloo nit ñooñu ne aljana lañ jëm buñ deewee ci yoon yooyu loolu du dëgg. dafay am ba ci ñi war a wéy ji seen borom war sax ñuy dem ba ñu yi programme ba noppi waxtu ba jot te nit du wéy ji borom fekk booba am na lu leen yàlla waxul mooy dafa nekk liste d'attente nek fantadiru inni maakum min al muntazirin waaw ci ñu mel noonu ci ñu complication yu bari di amee asalaamaaleykum wa rahmatullah man la soxna ma khadi ma len di nuyu di len ziar di wax ni bu len décourager ci euh, waa ji ma tek ngeen koy déglu vu que dama ko bëgg a donc fokk ma tek ay waxam voilà légui ma len di ñaan ngeen partager vidéo bi tasaare ko fépp ndax ki dañ ko wara dénoncer waruñ tok di ka sétane parce que danger pour la population sénégalaise danger pour la euh, pour la population musulmane vu que euh, da fay ñew di fay woté au nom de l'islam ba paré di réral nit ñi au nom de l'islam donc fokk ñun tam ñu juk léral ko au nom de l'islam ma leen di ñaan ngeen partager vidéo bi bi la ñu tambali léegi déglu leen bu baax a baax a baax yu Moustapha si wax ci gamu gi mu organiser won kérok bismillah ñu dem bo amul seetlu ci yenen ci bi ni muy waxee dafay am lu lay rëcc ndax la mu jëlee foofa ca kaw ak liñ ko wàcceel ci suuf dafay am lu ciy wuute boo dul xam cadre amaanaat yi الأمانة الكلية الأمانة الجزئية doo xam ñi sa fas yi jëlal baa nga ñëw rek té né nga sa ñak yar amoo ko koy won ku dul yalla bi la sak ak yonent yalla yi tey nga xam lepp deug la partager len vidéo bi incha allah ok léegi mu egg si foofu dafa am onde yu positif ak onde yu négatif yii ci nit ñi la nekk yii nekk ci jinne yi loolu mooy tax déglu leen ko bu baax comme ça ngeen mën a comprendre li ma koy tontu fan laa ko teg noonu te amuloo garantie wóoru ndax yooyu nga delloo ziar Fatima Abra uh, Abramovic maa ngi lay nuyu frère de la ziar exactement ñoom li ñuy organiser déjà bi daaw la ba pare toog di ci xotti war ma yàlla lépp dina partager leen incha allah waaw parce que Daoud ñoo bokk sax ci onde yu ñuy émettre te seeni longueur d'onde bokkul te loo tax fa fahamnaha Suleymaan wa kullan aatayna hukman wa ilman bi ñu demee ba Suleymaan di dégg lu Daawuda déggul داود من كون من مصبي أكيد بخلو خلو بي يقنجي وحي انتي سليمان نيكو خالص بيفي نيكو يب foye nga leen de maa ngi ñëw Suleymaan bàyyam bi ko jur di ko wax ni ko xaalis bi fi nekkoon yépp foye nga ko ndax sa coro yi te bi mu koy wax loolu booba Suleymaan mu ngi yëg ni bàyyam daawu tëdd na doomam laa xawla wala quwwata illa billah ñoo ko déggandoor n'est-ce waa ji ñuy wax Moustapha Sy di ndawal iblis ndawal iblis bi ci réew mi dégg ngeen wax ji mu wax keroog Moustapha si nena na yàlla Suleymaan dafa amoon ay coro ba pàppam ne ko xaalis bi fi nekkoon yépp yàq nga ko ci sa coro yi nee na te boobu xamul woon ni maa ngi jéggalu nag si la ma siy jaaraat mais foog ma jaaraat si mu ne te boobu xamul woon ni Souleymane xam na ni moom tëdd nag doomam maanaam inceste la jël jiñ ko yonent yàlla daaw Daawda xam nga Iblis dafa am ay ndawam gis nga yàlla bi mu ñu sàkkee ba pare da daan yónni ay yonent pour ñu jubal xeet wi pour ñu gindi xeet wi pour ñu teg leen si yoonu siraatal mustaqim Iblis tamit il fait la même chose dafay former ay ndawam tàggat leen yabal leen pour ñu sànq jullit ñi pour ñu sànq xeet wi pour ñu réeral leen kii dafa bokk ci ñooñu moo tax ci moom lu war la Moustapha Sy sa wax ji nga wax ni yonent yàlla Suleymaan ak yonent yàlla Daawda ay njaalookat lañ sa wax ji du wax bu wér ndax kenn du fekk ci alxuraan kenn fekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wax ji ñu ngi koy fekk ci téere sioniste yi juif yi ci ñooñu lañuy fekk wax yu bon yi kufriyaat yi moom tafaasi dafa bàyyi alxuraan bi yàlla wàcce ci ñoom bi yàlla wàcce ci moom dem jël référence ci téere yahudi yi ok te bu ñu fàtte ni alxuraan lépp la nettali dafa nettali histoireu démb nettali tey lii di xew ni actuellement ba ci genre Moustapha Sy gi sax yàlla mettroon nañu en garde ci genre mel ni ñoom ba noppi nettali tamit li war a xew suba kon alxuraan dara la bàyyiwul léegi moom Moustapha Sy dafa fàtte ni yonent yàlla Daawda bii muy accusé inceste kooku nit ku sell la kooku dafa sell dafa sell gën a sell baayam almaktum gën a sell maamam baabakat si gën a sell maamam Alaaji malik si gën a sell baayu maamam Ousmane si yonent yàlla daawda suñu borom da ko seedeel si alxuraan ni kii ku sell la yàlla moo ni neex ni'mal abdu innahu awwaab léegi nag yéen ñi nga xamante ne yéen a génn naan da ngeen di layal Moustapha si ci lii mu bëgg a daganal njaaloo parce que gis nga communication dafa am solo surtout genre mel ni Moustapha Sy nee naa leen ay message yu subliminaux la ñuy bëgg di lancer ndax doomu aadama bi cerveau bi ko yàlla may cerveau boobu dafay décoder ay information ñoom vu ko seen mission mooy yàq nit ñi pervertir leen divertir leen dévier leen il faut ñuy lancer genre message yu mel nii waxam ji dara wundu ko lu dul bëgg a daganal njaaloo bëgg yow mi ko topp di ko déglu nga ne ah comme que yonenti boobu noonu daal na njaaloo kon kay garaawul man tam naa njaaloo comme que yonent boobu daan na am ay coro garaawul man tamit mën naa am ay coro waxam yooyu yëpp loolu képp moo ko wundu dara wundu ko parce que waxam jooju mënoon na ñàkk donte nag amul mais bu fekkoon ne sax lu am la mënoon na ko bañ a wax parce que yenn wax yi nga xamante ne dafay réeral nit ñi daleen di sànk nga tëjoon sa gémmiñ moo gën balaa maa dee nag ñu naan xamoo leen fi muy waxee li muy wax dafa kawe seen xam-xam eggul foofu ok vie que su waxee ba pare kenn du xam li muy wax mieux mu tëj gémminam quoi vraiment parce que yonent bi yàlla yónni da daan wax mu leer nañ ñëpp comprendre li muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya mu sa wàcc ci moom saxaaba yi di ko posé question mu naan non lii dégg-dégg la xamoo leen lu muy firi loolu mus musta am kon yow mi nga xamante ne yàlla yónniw la tey yónniw la suba boo demee bay osé di ibbi sa gémmin ci diine wam bi na nga wax lu nit ñi mëna dégg na nga wax lu nit ñi mëna comprendre mais do wax sa musiba wax sa wax bu bon ba paré nan dégg-dégg la loolu duñ ko nangu mu ndax munoo wax ba dakk yonent bi wax wax ba dakk yalla wax te yalla waxam lepp leer amul lenn lenn luñ lay wax ne non li mom kenn mënu ko firi li dégg-dégg la apart alif lam mim apart alif lam mim sa yoy non amul lenn ci alquran luñ dul firi ok kon Mustafa si bo dematee bay wax lu nit ñi dul comprendre nga nopi mo gën ndax fokk na ku dem ba dajale mbolo boy wax ak mbolo mom war nga leen mëna wax lu ñu mën dégg lu ñu mën comprendre n'est-ce pas Mustafa si njaaloo bi nga bëgg a daganal loolu mënta nekk yak ñi lay layal gis na ay nit ay nit yu doy war ay nit yu nafiq sax ay si ah le comédien le kulun la sa genn am le kilo nan da ngeen di layal mustapha si nan jamono yoy ndialo dagan na mais du deug ndialo daganul won musta dagan te aduna du neex ba ndialo dagan la preuve la preuve moy jamono yonent yàlla euh, Yusuf xam nga xissa yonent yalla Yusuf xam ngeen ko ndax yalla netal nañ ko ci alquran jabaru bur bi bimu ko bëggee woon sàkku borom këram dani ko tuubal sa bàkkaar bi jéggalul sa borom sa bàkkaar bi loolu non lan lañ ci déggé luñ ci déggé moy ni ndaw si lam bëggon def loolu bakar la woon té yonent yalla yusuf mo jitu yonent yalla sulayman jitu yonent yalla daawda donc su fekkee ndialo daganul won jamono yooyu munta dagan ci jamono yàlla euh, mënta dagan si jamono yonent yalla sulayman kon pour yeen ñi di naan ay Moustapha Sy fimi waxe xamoo len ko ndax temps yoy ndialo daganono lolou du deug thèse ko ngeen tege ke neulee ok beneen bi Youssouf bi ka ndaw si bëggee sàkku suñu borom da ko misaal wax ko ni ko bul tàbbi ci bàkkaar boobu bul tàbbi ci bàkkaar boobu déglul de loolu la ko yàlla wax bul tàbbi ci bàkkaar boobu maanaam tentation bi ndaw si doon def pour pour xëcc ko ci bàkkaar boobu yàlla da ko ne bañal bul ci tàbbi loolu lan lañ ciy déggee ba tey mooy ni dafa xaraamoon moo tax yàlla bañ ko ko léegi yow Moustapha Sy ndawal Iblis bi yow nga ñëw ne yow da ngay daganal njaaloo dem bay ose di naan yonent yàlla daaw da tëdd na ak doomam bu mu jur inceste Moustapha Sy xanaa loolu moom yow yaa kay def moo tax nga am le kilo di ko di ko accuser yonent yàlla daaw Daawda xanaa yow yaay def loolu yow yaay tëdd ak say doom yi nga jur xanaa wala sa baay moo koy def yow da nga réew te sa réewande ci fëree miya nga won ko say waajur yi la yaree noonu pas yàlla ak ay yonentam sa réewande doo ko won yàlla ak ay yonentam boo ko essayé rek on fera face avec toi duñ la may dara kii Moustapha Sy saaga bi mu saaga yonent yàlla Souleymane ak yonent yàlla Daawda daf ko nàmp ci baayam bi ko jur dinaa leen indil vidéo papam almaktum fi mu toogee accusé yonent yàlla Nuux d'inceste je ne yonent yàlla nuux dafa tëdd ak doomam baal ma téléphone bi s'il te plaît balaa sax ma leen di ci vidéo yonent yàlla kii balaa may ñëw ci vidéo accusation bi mu defoon ci yonent yàlla nuux ba tey rek ma indi leen ay preuve yu yu ne jamono yooyu noonu njaaloo daganul woon ndax lu gis nga yaayu Insa Insa Mariam bi ko jibril feeñoo bi yàlla yónnee jibril pour mu may ko doom jibril bu mu nee tëll yonent euh, soxna Mariam dani ko yàlla na ma yàlla musal ci yow bu fekkente ne ku ragal yàlla nga jamono yonent yàlla instant bi yàlla yónnee jibril pour mu may doom Mariam bi ko Mariam séenee tak loolu la ko wax parce que lutax mo ma wax ko loolu mooy moom si boppam jamono yoy bugul won tabbi ci lu bon te encore bimu déllu dellusee ci dëkk ba yobalé dom ji yobalé yonent yalla insa wa dëkk bi yëpp jom mi nan ko la ilaha illallah yow foo jëlé li sa papa de ku bax la won té yit sa yaay doon lu won fokat lolou mooy lan lolou jamono yoy nonu bakkar bu maga maga mag la won gatché la won sax yow mustapha si nga dem tibé fu sori ne jamono yonent yàlla Souleymane Diallo dagganoon na message boobu c'était un message subliminal pour yow mi topp Moustapha si gëm ko yaakaar ko mu jaral la lu ne gënal la sa ndey gënal la sa baay boo déggee ci gémminam moom mu daganal njaaloo après yow pour nga njaaloo dafay yomb parce que da naan sama sëriñ bi ma gëm nee na njaaloo daganoon na ci jamono yonent yàlla Souleymane kon kii Iblis moo ko yónni pour mu réeral ndaw ñi Iblis moo ko yónni pour mu sànq ndaw ñi

ci waa Sénégal di naan borom xam-xam la bu waxee tey balaa moo waxaat dëwan patati patata kooku lu mu réeral ci ay nit secte bii ñuy wax Moustarchidine moom moo ko créé dem bàyyeekook doomu Moustapha Sy Moustapha si ci biir secte boobu la dem créé yeneen ñaari sect benn bi mu tuddee ko femme dévouée dénk ko doomam bu jigéen bi Fatima si beneen bi mu tuddee ko Colisée de l'éveil dénk ko doomam bu góor bu réew boobu xamadi boobu capitaine Sy ma indi leen papa ji fi mu saagaa yonent yàlla nuux yonentou bu tedd bobu te sel bañ na ba yalla daka daka daka tuddé sar surat nuh ñom yalla gërëmu len yalla santu len yalla taggu len yalla santul kenn pour nga top fami bobu ñu am le kilo taxaw fi di xoti war yalla guddé ak bëccëg suba wai ay way di anu vidéo ba xaar leen ko gis te inshallah allah dajal ay nit amo loy def lu dul di daganal ndialo parce que sank ngeen doomu adamay reeral ngeen doomu adamay yi ngeen len ak sen borom bi len sak ba gisatuñu lu dul yéen toppatuñu ku dul te yeen yeen yen du ngeen ay roykaay yeen ken waru len top yeen ku len top ngeen sank ngeen sank ko ok papa ji fii la ko deg lu len. recours. kenn mënatu ko def moom dafay jur déséquilibre du leneen nag ma ni ko yonti yàlla Souleymane amoon na ñetti téeméeri coro ñett dégg waaye ci jamono daawul jur déséquilibre lu tax parce que bu leen dencul du ñu am ko ñu see parce ay doomu nit ñi loolu ñu ba leen di amee moom rek moo ko man ndax nangu na alalu ñëpp Kita di wax ni almaktum la de almaktum mooy wax nii parce que mën na ko budget ma gën ci loolu moo bu ñu ne yent ak bu la ilaha illallah te bu fekkoon dafa aram ci jamonom du ko def parce que ci parce que du jur déséquilibre ci ndax dañoo nëbb dañu yemale seen mbir bëgguñu ñi leen noonu jot ci jamono yoy ndialo sax dafa xaraamoon waxatuma la ngay ndialo sa dom bi nga jur al maktum fen wu reuy wi la fenal yonent yàlla al maktum wax ji la njëkk wax bala domam ji di ko répété moom moo ko njëkk a wax moom moo njëkk a wax ne yonent yàlla suleymaan ñett téeméeri coro la amoon loolu du woon ay coro loolu ay jabaram la woon ndax jamono yooyu noonu yàlla daganaloon na ci ñoom ci seen charia ñu am lu ëpp ñeent jabar seen charia jamono yooyu loolu la woon yonent du tàbbi ci bàkkaar yonent du def lu xaram ma biisaat ko rek pour won leen famille bi ni mu nekkee danger ci biir réew mi papaam moo njëkk a wax wax ju bon ju salte ji déglu leen ne anu yonti yàlla anu Souleymane amon na ñetti téeméeri coro ñett waaye ci jamono daawul yu déséquilibre lu pas parce que bu leen dencul am ku ñu see parce que ay ñu te ba leen di amee moom rek moo ko man ndax nangu na alalu ñëpp nangu na alalu ñëpp il faut que mu accepte nag ah, pour entretenir leen il le faut absolument parce que ken du ken du mar baal leen ma parce que kenn du xiir kenn du mar kenn du ñàkk takkaay parce que mën na ko budget ma àgg ci loolu moo tax bu ñu nee yonent yàlla noor jaxasoo ak doomam bu jigéen te bu fekkoon dafa araam ci jamonoom du ko def léegi almaktum ba mu waxee wax ji ba pare soo ko nee woon waaw góor gi sa wax ji fan nga ko jëlee ana cëslaay bi ana delluwaay lan mooy delluwaay ci sa wax ji nga wax ne yonent yàlla nuux jaxasoo ak doomam ana preuve am alxuraan indiw ko sunna yonent bi indiw ko benn yoon famille bi feme dafa bokk si ñoom. ñii blasphémer manam saga yalla saga ay yonentam saga diine lislaam il faut ñu def pour lan parce que ay sataniste lañu ils ont vendu leur âme au diable il faut ñuy satisfaire diable bi diable bi li mo koy satisfaire ngay xoti war ma yalla, di saga yalla. li ni moy tax sen grade di gëna a ci loge maçonnique yi ñu bokk parce que ay degré la ok jaru wax yu bon yi mooy tax ñu leen di gëna a parce que gis nga doomu aadama soo ko gisee mu wax wala mu jëf lu wuteeg yëfu euh, lu wuteeg lu nite rek xamal ni kooku noonu am na leneen lu nekk ci moom lu bokkut ak nite xaw ma ndax comprendre ngeen li ma bëgg a wax de maanaam nit soo ko gisee mu def lu defuwul loo xamante ne nii lii nit ku baax du ko def xamal ni kooku soit dafa dof wala am na leneen lu nekk ci moom lu dul ak nite ba tax na doomu aadama bu amee la kilo di oser di wax yenn wax yoo xam ne yow mii di ko déglu xam nga ni amoo fitu wax ko c'est parce que nit kooku noonu soit dafa tàggoog xelam soit il est habité il est possédé par des démons te man loolu laa gën a jàpp ni ñii ay possédé lañu lu tax ñu nekk ay possédé mais gis nga xam nga yàlla dafa wax jàmbi bi su yàggeeg man damay dem ba doon làmbinam doon tànkam doon loxoom loolu luñ ciy déggee mooy ne nit ki bu yàggee borom bu yàggee di jaamu yàlla di wéetal yàlla di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem day dem ba li muy wax yëpp luy neex yàlla lay doon li muy dox luy neex yàlla lay doon li muy def yëpp luy neex yàlla lay doon ñi topp seytaan ñi topp iblis tamit c'est pareil pour eux jaxasoo bu yàgg bu ñuy jaxasoog seytaan day dem ba seen làmmin iblis da cay waxee moo tax bu ñu waxee rek yow yow nit ki yow nit ku normal ki boo leen déggee ñu wax da ngay tiit dangay taf sa loxo sa gémmi ne subhanallah auzu billahi mina shaytaan rajim naka nit mu ne wax wax ju ñaaw ji jëmale ko yàlla famille bii li ñuy wax iblis sax ñemew ko wax xanaa xamoo leen loolu maanaam yoonu tasawuf moo nekk yoon boo xamante ne foofu ngay déggee façon wax bu bon bu ne foofu ngay déggee façon saaga yàlla bu ne foofu ngay déggee façon blasphème bu ne foofu ngay déggee façon xotti worma bu ne si ñoom ngay déggee sama mam mo bind yalla ñom tasawuf si ñom ngay dégg lol wax lool lool iblis musu ko wax si ñom ngay déggé sama mam mo gën yalla si ñom ngay déggé lool si ñom ngay déggé damay xex ak do kapiten, lol wax nako capitaine lool iblis musu ko wax iblis musta tekk yalla, iblis limi bon nga xam mo gëna bon kuy bon musta tekk yalla iblis sax parfois day tok di choquer ci ñi seen wax yi ñuy wax di jommi donc Moustapha Sy Moustapha Sy sa wax ji tuub ko tuubal sa wax ji parce que boko ko tuubul xam nga ci bir gamu gi da nga netali lu graw lu doy war xawma ndax nit yi ci xel Moustapha Sy neena. dafa am way bu ñew ne ko dama gënt al maktum nima na la wax ni dafa tang man waxuma ko de Moustapha Sy moo ko wax ci gàmmu gi ndax man damaa jël sama temps déglu gàmmu wam bi ba mu jeex tàkk trois heures de temps yëpp laa déglu gënalu ma de ñàkk pexe moo tax mais comme que ñii boo jugee pour dajji leen foog nga leen di déglu pour xam lu ñu wax mu Sy nee na papam da ko feeñu ni ko sama bàmmeel buñ ma suul dafa tàng ni ko ni ñu ma dencee neexu ma ni ko vitre yu ñu def ci bàmmeel bi dafa tàng loolu nag message bu codé la man nag bëgguma ko décoder ndax su ma ko décoder xëy na dina wax loo xamante ne nii bon mën na am mu nekk njuumte mën na am tam mu jur leneen donc côté boobu noonu naa ci noppi mais lu ma lay xamal mooy Moustapha tuubal sa wax yu bon yii nga wax jëmale ko ci yonenti yàlla Souleymane ak yonenti yàlla Daawuda tuub ko ndax boo ko tuubul bés boo fi jugee soo moytuwul di nga feeñu sa doom capitaine ne ko ma dencee neexuma comme ni nga waxee ne noonu la ko sa papa defee waxuma ko de yaa ko wax na leer moo ko wax ci gàmm bi moo ne almaktum koo feeñu ne ko ma denc dafa tàng loolu nag doy na waar trop wax dëgg neex yàlla ba tey ñu eggaliwaat Moustapha Sy moo tax ele ma ma arrière ko kulla atayna hukman wa ilma bi ñu demee ba Souleymane di dégg lu Daawuda déggul yonent bi baat boobu mu wax nekk baat bu jaaxal ñu bare dafa waxoo dëgg amul benn xadis boo may indil bu wér bu am chaîne bu wér buy wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne alxuraan ak doomu aadama ay frère lañ loolu du dëgg sa wax ji wérul man dama jaxlé ci yeen suma leen di am fit di wax ci diiné gi lo xamante ni nii amaloo leen ko cëslaay amaloo leen ko benn dalil Moustapha Sy defiyee na la indil ma hadith bu wër bu am chaîne bu wër buy wax né yonent bi néna na ak doomu adama ay mag rak lañ indil mako suñu pour arbitre ba motax mu wax ar-rahman allama خلق الانسان علمه البيان و من نياري فير يو ورا عنو تسين دي بو يومبو yàlla nee na kenn ku ki ne lay tax ngay jubóog sa moroom def naa ko moo di alquran jàngal naa ko buy liyaar nit ci ban logique di alquran jàngal na ko buy liyaat yàlla nee na kenn ku ci ne lay tax ngay jubóog sa morom bon ki euh nuñ koy waxate sax waji ji mu ne xaalis bu ñuy utiliser pour gàmmu mënon nañ ci def euh, xaar commentaire bu rëcc na ma mënoon nañ ci créer ay emploi ak yu kenn xam non duñ def lolu parce que xamul lu tax

da ngay gis dañuy yor alal bu dul jeex jënd ay auto yu dul jeex jënd ay kër manam ils vivent le paradis sur terre après nak ñu bëgg la gëmlo ni talibé yi ñoo joxe àddiyee du dëgg Sénégal est un pays pauvre 25e pays le plus pauvre dëkk bobu mënul générer xaalis bu toll ni bi sëriñ ci am mënul nekk c'est impossible ils sont financés par les lobbies maçonniques ñom xam nañ loolu duñ ko wéddi loge maçonnique ñoo leen di financer yow tu t'imagines ben sëriñ bu liggéeyul di dawal auto bu jar cinq cent mille euh, xaaju milliards 500 millions fan la jëlee xaalis boobu parce que loge yi leen di financé loge yi la ñuy liggéeyal gis nga xew-xew yi ni ñuy organiser bu ñu paree dañuy jël vidéo yi dem yóbbul ko ñooñu ne leen xool leen ñoo ngi def suñu liggéey ni mu waree ndaw ñii ngeen di gis nii ñëpp ñun la ñu gëm ñun la ñu topp ñoo leen gënal yàlla gënal leen yonent bi nga bi yàlla yónni ci ñoom ñoo leen gënal sax seeni waajur moo tax parfois su gàmmu passé wala màggal ngeen di gis yenn extrait yi loolu yëpp dañ koy dajale yóbbu ko ci loge maçonnique yi wan ko seen mentor yi wan ko seen maître yi ne leen xool leen liggéey bi ñu ngi koy defee comme ni ngeen ko bëggee ñu ngi leen di yàq ndaw ñi sànq nañ leen boo xoolee Sénégal jeunesse bi nu mu sànkuwee ñii di deful bon ñëpp ci tarixa yi la ñu bokk seetlu woo leen loolu xanaa sàcc yi góor jigéen yi jaaykatu dorog yi ñii di njublang defkatu ñaawteef yëpp ci tarixa lay bokk par force pour lan parce que ñoom ñëw nañu yombalal nit ñi aljana jàpp diine bi njar ko ba mu woyof yombalal leen aljana yombalal leen allaaxira yombalal leen yowmal xiyaam ba tax na nit ñi seen xel dafa dal ci ëllëg ba lu leen neex la ñuy def soo duggee ci tiktok bi da ngay jomm jigéen ñi nu leen neex la ñuy futteekoo musique rek mooy seen àdduna tëgg way fecc amuñu benn souci si yowmal xiyaam à cause de sëriñ sii parce que yow bu yàlla ñëwee sàkk ay jaamam diggal leen pour ñu jaamu ko yow sëriñ bi nga ñëw ne leen bu leen jaamu yàlla sàndeeku leen fëlaale leen def leen lu leen saf bu ngeen deewee sama maam dugal leen aljana si Sénégal noonu demee Sénégal noonu la demee noonu la demee Sénégal ndaw ñi diine yitteelu leen diine fere ferege ñeentew leen diine safu leen yëgaluñ ko sax seen yàpp yaram ñoom lu leen saf la ñuy def pour lan parce que ñii gëmloo nañ leen ne bu ngeen deewee ñu ñoo leen gérer keroog yow mal xiyaam moo tax ma ne la seytaan la ñuy liggéeyal parce que bu leen fàtte gis nga yàlla bi mu sàkkee maam aadama diggal malaaka yi pour ñu sujjoot ñëpp sujjoot ba mu des iblis Yalla ne ko lan motax nga bañu sujjot mu ne ko duma ma parce que ki maa ko gën man safara nga ma bindé té mom ban nga ko bindé yalla dakk ko yalla xalak ko mu mer nak mom iblis na yalla dama lay ñaan nga may ma ben affaire yalla ne ko ok ñaanal mu ne ko damay ñaan nga bayima ma dund ba kérok ngay dekkil jamm yi biko yalla yàlla accordé lee ñaan bobu si leen yalla nak sa jaam yëpp dinaa lef dinaa farankulaay ci sa yoonu siratal mustaqim bi actuellement non la ko iblis di défé mais comme que ñun amuñu pouvoir gis Iblis amuñu pouvoir dégg ko moo tax dafay fabriquer ay nitam façonné leen indi leen yónni leen ci ñun pour ñu dévier ñu. mooy nit ñi mooy genre Moustapha si yi genre sëriñ mun taxaa yi ngeen di dégg ñu naan yow mal xiyam damay romb yàlla romb yonent bi genre Serigne ci nekk Sénégal daal di xotti war ma yàlla di réer ndaw ñi mbooloo taalibe topp leen ñu leen di sànq. ay ndawal Iblis lañ ñoom ñëpp xam nga tamit nañu waxante dëgg quoi yàlla mënut a rëdd yoonam tuddee ko siraatal mustaqim diggal ñu pour ñu jaar ci yoon boobu yow maa xadi nga ñëw am fit créer sa beneen yoon tuddee ko muridiya wala tijaaniya wala xaadiriya wala axlulaahi di ci woon nit ñi ba noppi bëgg a gëmloo nit ñooñu ne aljana lañ jëm bu ñu deewee ci yoon yooyu loolu du dëgg ku topp leneen lu dul alxuraan ak sunna ba dee tàbbi safara par force xam nga suñu waxee ngeen ne wéy da ngeen di juger nit ñi da ngeen di yóbbu nit ñi safara ñun yóbbuwuñu kenn safara moomuñu safara bu fa yóbbu kenn te it yéene ko kenn mais xel xelu doomu adama jëriñu luddul dul yalla du def contradiction yàlla ñu diggal pour ñu top siratal mustaqim nga bàyyi ko fa dem tidiane ya wala ya wala wala wala axlu laax ba pare bëgg yalla yobul aljana mënul nekk yalla dafa ut model. muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ki roy len ko bu ngeen ko royé du ngeen réer ki moy sen model top len ki nga bañ dem top ben Wally sek di roy ci ni solo soloo doxé ak waxé di def ay di rosa say tuñ di wax di macc say tuñ di di def ay affaire di roy euh, walé sek mom te yow doomu aadama bi yonent bi nga wara roy mom nga wara roy ci lepp yonent bi dang ko wara roy ci numi solo roy ko ci numi waxé roy ko ci ay jukko roy ko ci pas parce que c'est le modèle parfait nga bayiko ko fi iblis présenter la yenen model nga dem jël modèle yooyu non di len roy nañ len yewu te xamni ñi shaytané li ñuy liggéeyal ñii ñu yalla kuy liggéeyal yalla nga organiser gamu gamu bi ba gamu bi jeex waxo nit ñi benn yoon luy tax ñu delu ci yalla waxo nit ñi tawhid leralo benn ay alxuraan buy tax nit ñi delu delu ci seen borom bi len sak manam yow gamu bi yépp politique nga fa doon wax wala saga ay yonent lo képp nga nekké won ci gamu gi ma delu ci wat ci sama sujet bon hama arrière vidéo bi ngeen deglu ba tay nekk baat bu jaaxal ñu bare te mooy dafa wax ni alquran ak nit ay frère lañ ah mu am ñu mu jaaxal ndax alquran dafay liyaar te nit dafa amee yang di wax soxla te Al Quran wax ni alquran ak nit ay frère la voilà Moustapha Sy Moustapha sa wax ji nga wax ne alquran ak nit ay frère lañu du wax ju wér du wax ju wér du wax ju wér du wax ju wér ndax xam nga lutax ndax alxuraan waxu yàlla la yàlla moo ni yàlla moo ni kalaamul kalaamullaahi alxuraan sama wax la man yàlla te doomu aadama mbindeef la bu sokkeekoo ci tokkantalu man niw donc mbindeef boo xam ne ci tokkantalu man niw la sokkeekoo mënoo ko égaliser ak kàddu yàlla si impossible kon sa wax jooju njuumte la doomu aadama si moroomu doomu aadamaam lu jógee ñaareel bi mooy nit mën na bon comme mën na baax te alxuraan lu bon amu tax alxuraan lepp a baax sa wax ji nak lu mu wundu moy ni buggoo lu dul jël doomu aadama tekkale ko ak alxuraan te loolu daa mënta nek parce que alxuraan dafa ñew pour jubal nit donc lu ñew pour jubal la lolou mëno tolo ak mom yow mi bëgg faju boy dem da ngay dem ci docteur bo xamanteni mom mo la ëpp xam-xam ci walu santé nga dem mu faj la do dem ci ko xamanteni amul ben xam-xam amul ben amul benn compétence pour me faire non donc alxuraan dafa ñew pour gindi ñu pour jubal ñu lumière la mënuñu tollo ak mom c'est impossible. ba tay ñu eggali rek euh, Moustapha si ndawal iblis bi ci réew mi. moo alcorane alxuraan ko buy liyaar nit.

amul lumi muy wax ak alquran wala mu koy proposer alquran dedet alquran kay mo ñew pour wax ak nit alquran mo ñew pour wax ak nit mais nit amul lenn lu muy wax ak alquran gis ngeen ni muy ñakale fayda alxuraanu yalla ji quoi dika dika yemalé ak nit dina nit day wax ak alquran la la nit di wax ak alquran alquran mo ñew pour wax ak nit jubluwaay bi du leen lu dul doyadil alxuraanu yàlla bi dégluwaat leen ko rek xam nga chargé téléphone bi balaa muy fay. condition. waaye nit ak dimension. muy laaj rek ñoom ñaar ñooy échange. ban échange ban échange. ban échange tafa doomu aadama amul lu muy échangeante ak alxuraan gis nga échange boo koy def day fekk ki ngay échangeanteel nga soxlaal ko wala moom mu soxlaal la n'est-ce pas booy échange tey jii man su ma soxla woon dara ci kenn su ma waree def échange ak kenn day fekk mu yor loo xam ne daf daf ma daf ma soxal wala man ma yor loo xamante ne loolu da ko soxal entre nit ki ak doomu aadama doomu aadama moo soxlaal nit astaghfirullah entre nit ki ak alquran nit ki moo soxlaal alquran alxuraan soxlaalul nit dara alxuraan dafa parfait dafa mat sëkk yow doomu aadama bi kay yaay soxla nga dem ci alquran mais alquran du ñëw ci yow di sàkku ndimbal wala naan dafay échangeante ak yow kon Mustafa del wax waxu nit del wax lu xam-xame quoi dajale mbooloo ni di wax sa waxu pour lan ko bu amul ku taxaw pour rax yi rek den dugoman àttan moo tax ngeen di gis ni jawharatul kamal bi ngeen di tuddu jangal na ko bi wax ak alquran ci ben logique ci lay bu ko defee seen ànd dafay daal di yomb loo tax suñu boroom di wax ni bu ma dëppalewul woon seen xol ñoom ñaara kon ànd bi du man nekk waxoo dëgg de waxoo dëgg yàlla amul fenn fu mu wax ne doomu adama bi ak alxuraan damaa dëppale seen xol du dëgg bu doon loolu du am ay nit yoo xamante ne dañoo dañoo wan ginnaaw alxuraan non am na ñoo xamante ne gëmuñu alxuraan toppuñu alxuraan lijjantiwuñu alxuraan kon bu fekkoon yàlla dafa dëppale xolu doomu aadama ak alxuraan ba nga xam ne ñoom ñaar dafay adéquat su boobaa kon ñëpp ay àndandoo gëm alxuraan. li nga wax ni doo ma mës wax fan la ko yàlla wax doo indi preuve mukk ne yàlla fii la ko wax ci aaya bi non sa xalaatu bopp la te diina gi ñun soxlawuñ ci sa xalaat Moustapha si soxlawuñ sa xalaat sa ci diina gi soxlawuñ ci tamit xalaatu kenn. diine gi dafa mat sëkk kon wax ji nga wax na yàlla dafa dëppale xolu doomu aadama ak alxuraan loolu wax jooju wérul wax jooju saxul lii yépp jubluwaay bi mooy tuutal alxuraan wàcce alxuraan tollal la ko niveau doomu aadama te loolu mënta nekk beneen bi mooy Moustapha Sy alxuraan ak nit mënuñu ñàkk déggoo ñàkk déggoo bu amee rek mooy nit ki moo jubul parce que yàlla bi nga ne moom mooy arbitrer entre doomu aadama ak euh, alxuraan yàlla boobu ci boppam moo ñu digal nañu ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen alxuraan bi ma wàccee ci yéen ok donc ñàkk déggoo bu amee rek xamal ne nit kooku noonu moom moo weddi alxuraan jubluwaayu la fait que mu naan doomu aadama ak alxuraan ay frère la ñoo tolloo du lenn lu dul bëgg na ñi koy déglu jàppee alxuraan moroom te loolu su boobaa yow alxuraan dootu la jëriñ ndax loo dem ba jàpp na yéen a tolloo loolu dootu la jëriñ loo jàpp ne yéen tolloo loolu dootu la mënati jëriñ kon Moustapha si sa wax yi amul woon sens mënoon na sax ñàkk. beneen bi nga ne nga ne nit. dangay nga ne yow dangay jàng nit naka la war a waxee ak alxuraan Moustapha si nit amul lenn lu muy wax ak alxuraan déedéet nit doomu aadama amul dara lu muy wax ak alxuraan parce que nit ki moom moo soxla moom moo manqué la donc moom la alxuraan wala complété mais pas moom moom may dem di complété alxuraan ñu dégluwaat ko سيدنا الشيخ عروش الحقائق يولي القرآن دكت أم جروب moo tax juróom waxuma la fii alquran waaye boo bëggee bindal nit téere sax te maîtriser woo urus yooyu juróom yooyu te juróomi urus yooyu le sa juróomi baaraam moo leen représenté da ngay philosophe rek di wax wax yoo xamante ne teguwul fenn kii mu ne Moustapha Sy moo ëpp sa bàyyi xam-xam d'accord loolu dëgg la amul problème mais man ñeewu ma xam-xamam ndax amul lu tax Moustapha Sy dafa jàng ba pare jàngam boobu noonu mu ñëw uniquement pour di ci réeral nit ñi jàng na moom am na xam-xam d'accord mais xam-xamam jëriñu ko moom jëriñul it ñu ko topp euh, ñi ko topp du toog mukk ba wax leen xam-xam li ngeen jàpp ne xam-xam la lii dafay philosophe parce que gis nga xam-xam mënta génn alxuraan ak sunna xam-xam lu jëm ci diine mënta génn alxuraan ak sunna Moustapha Sy waxu leen alxuraan waxu leen sunna xalaatu boppam moom la leen di wax te loolu du doon leen di jëriñ doomu aadama bu ko xalaatu boppam doon jëriñ kon yàlla du yónni ay yonent ci moom mbaa muy wàccee alxuraan ci moom déedéet bàyyi leen xel ci waa ji ak njabootam capitaine si doomam boobu Moustapha xam na ni moom instant yi nii bëggul dem bàyyi terrain bi nul bàyyi bàyyi secte bi mu fay déedéet moo tax teel na préparé doomam instant nii mi ngi ñuy tàmmal doom ji dañu ko forcer par force ndax créé na secte jox ko doom ji Colisée de la Veille secte satanique la doom ji la ko dénk mooy mooy capitaine si moom la dénk secte boobu jeune yépp dem topp ko ndeysaan ku jàngul capitaine si jàngul capitaine jàngul dara dara dara dara ci diine capitaine boo ko bettoon xaaju guddi muy nelaw nga fëgg ko ne ko tafsiral ma fatiha du ko def mënu ko xamu ko jàngu ko moom Moustapha mu créé waat beneen secte joxaat ko doomam bu jigéen boobu doomam bu jigéen boobu tamit jàngul amul xam ndaw ñi topp leen ñoom ñu leen di réeral di leen sànk di leen lor agressé seen ngëm sànk doomu aadama yi nii doomu aadama yi da leen da ngeen leen sànk carrément Sénégal dañu sànku la preuve mooy nit dafay saaga yonent bi du leen sax saf duñ ko sax yëgal seen yaram mais boo saagaa benn sëriñ ci seen sëriñ yi coow li ne kur tey jii ku fi ñoon Alaaji Malick Njaaloo ma nga jiñ ne Alaaji Malick dafa tëdd ak domam Sénégal day tak jëppeen instant yi ni mom doful de xamna ni limu wax dara du ko ci fekk parce que jullitu Sénégal yi dañoo diviser wu dañoo xajalo ki dafa jaar gauche ki jaar droite sen pas pass yi bokul ku ci nek am nga sa serigne bo gem mu gënal la yalla gënal la yonent bi gënal la say wayjur gënal la ñëpp motax rew mom ba fa taxawé nga xoti war ma yalla mbaa nga xoti war ma yonent yi dara du la ci fekk waaye kenn ci seen sëriñ si boo boo ko fa waxee wax ju ñaaw ñu indi la problème loolu doy na waar doomu aadama dem ba moroomu doomu aadamam gënal ko yàlla bi ko sàkk nga war a xam ne nga war a xam ne nga war a xam ne le mal est profond sénégalais dem nañ ba seen sëriñ si ñoo leen gënal yàlla bi leen sàkk sàkk seeni waajur sëriñ see leen ko gënal sëriñ bi moo leen gënal seeni waajur sering bi jamu, ñuy jaamu parce que lu tax parce que li leen bi digal loolu la def lu mu leen tere loolu la ñuy bàyyi te doomu aadama boo demee ba sa nit digal ngay jëf mu lay tere ngay bàyyi kon kooku yow yaa ngi jaamu yaa ngi jaamu parce que mu digal lu la yàlla tere wala mu tere la lu la digal loolu mooy sànq na la àdduna ak àllaaxira yeewu leen te xam ne diine du du lu parce que lii yëpp dafay jeex folklore yi àdduna bi nii lekk beeg naan bi tëdd nelaw bi lii yëpp dafay jeex dañuy dee ñun ñëpp dem taxaw ji ci kanamu yàlla te bàmmeel kenn du la laaj Moustapha Sy kenn du la laaj maamam Alaaji Malick yonent bi lañ lay laajte fexeel nga topp ko moom la yàlla yónni fexeel nga topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ lay laajte duñ la laaj keneen say waajur yu la jur sa duñ la ko laajte kon yeewu leen ngeen xam ne ñii ay ndawal iblis lañu iblis moo leen yónni pour ñu réeral nit ñi sànq leen léegi am na vidéo capitaine bu ma bëggoon teg mais téléphone bi yor ma ko instant yi nii xam naa damay mujjee yemal fii live bi incha allahu rabbi ba beneen yoon Moustapha Sy li ma la yëgal mooy sa réewande gi nga àndal won ko say waajur yi la yaree noonu yaa ngi dégg wala booy wax sa waxu réewande yooyu nga yemale ko ci tarixa bi nga bokk sa waxu réewande ko ci tarixa bi parce que bu fekkoon kenn ku nekk ci sa tarixa yi moom nga jiiñ njaaloo ñun du ñu génn di wax yow suñu yoon du ci nekk boo jiiñoon Alaaji Maalik njaaloo duñ ci wax mais au delà ngay dem ba ci ay yonent yi yàlla yónni ci ñun di leen jiñ njaaloo su boobaa dañuy génn jàmmaarlu ko yow beneen bi lu ma bëggoon tëjee mooy dafa am benn kulun bu ñuy wax sànjoogu sànjoogu yow jàngoo amoo xam-xamu diine fero ij sànjoogu xàmmewoo luy bokkaale xàmmewoo lan mooy bidaa sànjoogu dara nga xamul ci diine lislaam nga am audace nan da ngay layal Moustapha Sy chetëdëtët man ma jomi ci senegal diine bi da leg ay kulun sax dañ ci am cadeau ay kulun ño xamanteni ci cirque bi lañ waron nek dañuy am cadeau ci diine gi tok sa plateau télévision da ngay layal mustapha si limu wax di nan ay jamono yoy alcorane waccul won d'accord alcorane waccul won mais sa ñogu xamal ni alcorane bayiwul dara la xewon demba sax alcorane da ko netali la xawoon démb alxuraan da ko nettali alxuraan dara la bàyyiwul yéen ragal leen yàlla ngeen bañ a ragal nit ñi bàyyi leen di fen di défendre loo xamante ne ni c'est indéfendable Moustapha Sy waxam ji mu wax waxam ji mu képp ku dëgg ñor képp ku yàlla ñor génn nga nga teg ko à sa place yow Sa jàngoo jàngaanoo kenn xamula kenn lijjantul Népal musical foofu lañ la xamee ci loolu noonu nga waroon yem yemal ci promouvoir Baara Ndiaye jabaram yooyu mu nekkee yemal ci loolu té nga xamné ne ding ko layok yalla yow parce que yow yaay invité baran jaay muy tok sa télévision di daganal njabar di daganal ñak julli ding ko layo ak yalla xolal len mako ñu bari gis nañ lu bari cité parce que euh, dama koy lu ku la ay waxam ndax gis li nga la lambo ak tamit niveau bi nga xam ni moom la waxee eh, dégg-dégg bu yaatu bi nga xam ni moom la am mm-hmm. sëriñ tamit naka noonu mm-hmm. moom it dama koy teewlu lu baree bare mm-hmm. eh, gis nga li mu expliqué fii ci bi muy wax ci tubaab bi lu mu doon seetaan ak kii nga xamante ni bi muy seetaan fi mu yonent yàlla noox mu ne mu am ci lu ko kii ndax kooku sëyoon na am na ak doomam doom waaw mu ne ko booba loolu aayul woon ay xewutoon dagan naa daganut kon waroo ko ci loolu hmm. comprendre hmm. maanaam ca jamono jooju hmm. eh, gis naa aussi tamit ñuy tont ñoo xam ne ñu ngi tont sëñ Moustapha eh, mais dañuy indi ci alxuraan te defe naa sëñ Moustapha li muy wax li mu koy wax boobu ci beneen époque la alxuraan wàccagut te buñ ko bëggee tontu ci alxuraan eh, li nga xamante ni bi moom la wax noonu damay jàpp ni eh, est fi ñu koy tontoo foofu la li may wone ni dof nga quoi da nga réer ci sa diine buñ ko tontuwul ci alxuraan si lan lañ ko war a tontoo yow xamoon ni alxuraan lépp la indi la xewoon démb alxuraan indi na ko lii di xew tey actuellement alxuraan indi na ko la war a xew suba alxuraan bàyyiw ko ba yow mal xiyaam sax ni mu war a demee alxuraan nettali nañu ko wax ji mustafa si wax si juif yi la ko jele si sioniste ci si la jele wax ji mais wax ji du wax ju wër du wax joy fekk ci alcorane du wax joy fekk ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ok kon sanjoogu diina yalla ji tecc dama bëgg nga tecc ci sa gémmin ok yamal ci njabaru baara njaay yi ngay promouvoir ak sa analyse politique yu bidon yooyu non ngay def yamal si lolu amo kaddu ci diine bi amo ci benn kaddu ndax li nga wax ni waxu dof la dan ay kenn war ko tontu ci alxuraan si lan lañ koy tontoo ñun jullit yàlla moo na ñun bu ngeen amee réeroo dellu leen ci alxuraan ñun alxuraan mooy suñu delluwaay bu réeroo amee ña entre ñaari jullit rek alxuraan moo leen di àtte bu ñu delloo ci alxuraan dinañ xam kan moo am dëgg ak kan moo nekk ci fen ok nga xamee ko noonu mu Moustapha si comme ni ma la ko waxee woon rek yow nag xëy na sa sa jàll na ba pare ndax yow jamono yi ngay jug doon sànq nit ñi temps yooyu mooy loolu daal kenn amul woon fit génn ne la carrément dangay ngay fen mais yooyu dafa jeex Sénégal de yooyu dafa jeex Sénégal fenal yàlla ba pare kenn du la wax dara yooyu dafa jeex Sénégal sëriñ bu fi génnati fen dinañ génne la carrément da ngay fen luñ ci góobe gar ko parce que yéen taalibe yi bu dee da ngeen bëgg sëriñ si ba mu gënal leen yàlla xam leen ne ñun yàlla moo ñu gënal sëriñ si gënal ñu woy jur gënal ñu ñëpp yàlla ñu gënal àdduna ak li ci biir na leer ku fi salfaañeeti àqu yàlla ñu génn remettre la à ta place dawuñu ci saala yaay ndeer mustafaa si yoo papam woo doomam woo ñëpp ci bokk yam tarixa yëpp murit laayen tijaan xaadi ku génn xotti war ma yàlla ñu génn delloo la sa place réew moo xam ne fa la ñuy saagaa yàlla saaga yu amul fenn fa la ñuy kay xasee fa la ñuy xasee ay yonentam ba pare ngeen di wut jàmm jàmm moom di ngeen ko yéex am li ngeen di dund jamono yi lii mbugalu yàlla la ah? réewande dafa musa dafa mën a weesu yéen li ngeen nekkee xam nga ne bu ñu demee ba xale bu ndaw judd 1994 taxaw di naan day xeex yàlla waxatuñu mu naan yonant bi du modèle yonant bi yàlla wàcce nañu topp leen ko moom capitaine mu am fit naan ñu kii du modèle moo ko wax xaaral xaaral ma indil leen vidéo boobu capitaine si vidéo boobu sa laa indi tëjee ko baal leen ma rek ma tëjee vidéo boobu doomu Moustapha si mu réew moomu naan ñu yonent bi du modèle hey Sénégal moo neex Sénégal senegal neex na lu la neex ngay wax yàlla dara du la ci fekk waaye yàlla moom yàkkamtiwul tôt ou tard dinañ dee dem taxaw ci kanamam incha allah su boobaa lañuy xam ne lépp dëgg la ok déglu leen ko. alayhi wa sallam, une bibliothèque inexplorée, okay, une espèce à part. Ben dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bibliothèque inexplorée. Ben dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, essence de bonté. bon ben bañ xoolee ni ñetti thèmes yëpp du xëy ci benn programme dañ lañ ko condensé def ko muy programme. dañ ma choisir loteel bi xool xool xamuñ kan lañ koy jox xam naa ñu jox ma ko rek. parce que yow yaa am fit yaa fa gën a réew moo tax. rek ñoo ko waxee ku sañ te bañ sañ a nam. ok. xam nga yonent bi ni ma koy kaase bis bu nekk. mënta nekk ma dem. laa xawla wala quwata illa billah. bisu tey. explication jot na. ma arriéraat ko tuti ngeen déglu. waxee ko sant bay sa ñaan xam nga yeneen bi ni ma koy kaase bis bu nekk mënta nekk modèle. dégg ngeen de doomu dajjal bi doomu iblis bi capitaine si doomu Mustafa si bi ñëw jël tankam bi tek ko fi ko ay bayam tegoon ak ay mamam tegoon ndax ñom fami bi ñom li lañ leen xamé famille bii lii lañ leen xamee blasphémé yàlla ak ak ay yonentam lii lañ leen xamee lii dafa bokk ci seen doctrine ñoom capitaine moo taxaw nii na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du model ba pare est que xam nga moom ñi ko topp dañ ko tuddee royukaay royukaay lañ tuddee capitaine nee nañ capitaine mooy seen royukaay ñoom gis naa ko ci gàmm bi mu def ay coquette jam jooy def jiinam bu seere def ba large taxaw léegi yow yaay modèle yonent bi yàlla yónni taggu ko nga xamne ne ay jikkom bo boo bëggee xam jikko yonenti bi xolal alquran yonenti bi alquran la jikko wo nga ñew taxaw am fitna ñu ki du model li boko waxon ci yeneen dëkk yi dañ lay rendi xatit nga dé sénégal képp nga mëna taxaw di wax né yonenti bi du model. nga continuer di dund di dank say ciép yu niin di nekk ci sa jamm sénégal rek nga am fitu taxaw wax wax ju melni ni bi du model sénégal nga am fitu taxaw ne iblis jambar la tag iblis iblis mi yalla xalak yàlla nañu kii seen noon la moytu leen ko yàlla nañu moytu leen iblis kii seen noon la le diable est un ennemi déclaré yow nga am fit taxaw di tagg iblis moomu waa nañ waxante dëgg kuy taxaw di tagg seytaan ba pare di tuutal yonent bi di ko xas kooku lan la nañ waxante dëgg yàlla dëgg la bëgg ku am fit di xas yonent yi ba pare di yëkkati iblis kooku lan la kooku seytaan la koku setan kep lu meuna don doon mënta doon leneen nañ waxante dëgg parce que doful boko yobé ci cicatrice dinañ la wax ki dara dara jotu ko doful kon donc comme que mi ngi and ak xelam ba paré mu am fitu yonenté yi kon ki am lenen leneen lu nekk ci mom luddul ak nité yalla nañu yonenté bi wa innaka ala khuluqin azim ki mo gën ci yeen gën gi mindeef nga taxaw nañu ki du model. nga am fit nañu ki du model, lolu saga la ci julit xale bu ndaw capitaine fettagoo sax ci xottu nen nga taxaw noonu saaga suñu yonent man dama am lu ma metti ci réew mi dama am lu ma metti ci Sénégal billaahi wallaahi dama am lu ma métti ci Sénégal oh si. ah ku toll na yonent bi nga taxaw nañu ki du model bu len ko roy leg kan mooy model sa papa sa papa roy kay sa papa koku lañ wara roy bul ma wax loolu ma bëggul wax way yow capitaine si yow da nga wara nopi noppi wallahi wa taala capitaine jango capitaine rew nga vulgaire nga insolent nga ñak nga yar ba paré sa papa bëgg ñu lo forcer mustapha si pour lan mustapha si yow li nga réeral ci ay nit rek doyul nga bëgg ñu tamit sa dom sa baay almaktum lu mu sànq ci ay nit rek doyul nga bëgg ñu dolli tam sa doom pour lan ay Sénégal yeewu leen ngeen topp yàlla ak yonent bi mu yónni si yéen ñooñu lañ leen di laaj yow mal xiyaam yàlla yonent bi képp la laaj yàlla du leen laaj capitaine du leen laaj baayam nee naa leen ñii ci loge maçonnique yi la ñu bokk loge maçonnique gi ñoo leen di financé gis nga Iblis dafa waxoon yàlla muniko sa jam yi dina len sank dina len dévier dinañ ma top ñom ñep yàlla ne ko demal kep ku la top yow ak ñom dina fessal safar bu mu fess del ak ñom Iblis du ñoo taxaw ne len man la ma ngi ni man la Iblis top len ma dede da fay former ay ndaw yu melni capitaine. genre capitaine yi ak bayam lañuy indi tek len jox len pouvoir jox len succès jox len gloire en échange de leur âme bu ko defé yéen ngeen top len ba pare Sénégal. boo amee mbooloo rek ñu ne kii moom nitu yàlla la même bu dee mbooloo seytaan la sax ñu ne kii nitu yàlla la ah, maamam almaktum saaga na yonent yàlla nuux baayam Moustapha si saaga na yonent yàlla Souleymane ak yonent yàlla Daawda moom capitaine xas na yonent yàlla Moussa ne kooku du góor moo ko fi wax. vidéo bi dama ko wër ba sonn moo ko fi wax partagé woon nañ ko fan yële mu ne yonent yàlla Moussa du góor mu taxaw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du modèle. taxaw ne aadama dafa ñàkk fayda maam aadama mu ne kooku dafa ñàkk fayda kooku victime la dafa ñàkk fayda capitaine moo ko wax waaw yéen famille boo xamante ne xas yàlla saaga yàlla xas ay yonentam képp lañu fi nekkee ngeen ne ma famille boobu ay nitu yàlla lañu déedéet nañu waxante dëgg ay nitu seytaan lañu seytaan la ñuy liggéeyal Iblis dafa soxla ay candidat yu koy wéttali biir safara Iblis dafa soxla ay candidat yu koy wéttali bu leen fàtte loolu te ñii dañuy recruter Iblis ay nit dañ koy recruter ay candidats yu koy wéttali safara ay waay yeewu leen ngeen topp alxuraan ak sunna loolu mooy dëgg man duma jug ci dëggal ni alxuraan ak sunna mooy dëgg lu dul alxuraan ak du dëgg ak lu mu mënti doon loo ko mënti tuddee lu dul alxuraan dëgg lu dul alxuraan ak sunna ay caaxaan la ay fen la du dëgg neen la gis nga doomu aadama manam ñi ñi ni ngeen di gis capitaine wo papam ñu mel ñom ñu mel ñom seen wax yi ñi ñuy wax ñepp di jom naan ay way ñi luñu wax reyna na waxam bi tamit naka la mu wax li yonent bi man ñi seen wax seen wax yi deug la dina ma metti parce que julit la dama bëgg yalla bëgg ay yonentam ñoma gënal sama nday gënal sama baay donc seen wax yi daf may nakari mais du doon lu may ham si ñoom parce que dama leen xam xam ñi leen yoni xam ñi leen yabal xam lan moy seen mission dama xam lan mooy seen mission xam bu baax ñi leen yónni xam lan moo leen tax a jóg moo tax ñii lu ñu wax duma bett wallahi lazi ñii lu ñu wax duma bett ñii il vendent leur âme au gis nga doomu aadama ñaar yi moo ko composé mooy ruux ak jëmm iblis dafay jël seen ruux ñoom en échange mu jox leen succès ak gloire succès ak gloire mooy lii ñu am nii tey Sénégal pouvoir bi ñu am nii mbooloo bi ñu am nii nga jàpp ne lii mbooloo yàlla la déedéet mbooloo iblis am na de mbooloo seytaan am na ay nit dinañ dinañ topp nit te toppe wuñ ko yàlla Wally Seck am na mbooloo est ce que mbooloo wam mbooloo yàlla la est ce que est ce que soirée Wally Seck dina fa nekk naan dafay tafsir wala dafay indi ay xadis ak ay aaya non dafay nekk di tëgg di way di fecc ñuy sàndeeku di falaale ko loolu mbooloo seytaan la kon sëriñ si tamit il font la même chose seulement ñoom dañ ko habillé mbubbu diine lañ ko solal yëre diine lañ solal seen mbooloo bi bu ko defee nga jàpp ne ñii diine lañ toppee sëriñ bi te fekk du dëgg toppee wuñ ko benn yoon diine toppee wuñ ko diine mbooloo seytaan la iblis moo ko jox mbooloo boobu jox ko doole jox ko pouvoir moom jaay na jaay na amam iblis léegi dafay liggéeyal iblis li mu koy liggéeyal mooy da koy recruter ay nit yu koy wéttali safara iblis du dem safara moom kese de day am ay wéttal wéttal yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu waxante dëgg ku toppul yonent bi mënoo dem aljana man d'accord sama wax dina dëgg mais li ma wax muy dëgg ku toppul yonent bi mënoo dugg aljana c'est impossible mënta nekk su boobaa yàlla dafay def contradiction te yàlla du kuy def contradiction moo ñu ne ati un laa wa ati un rasul waxul benn yoon ati un Moustapha si wala wala euh, almaktum déedéet waaye dama ciy indi ay misaal wax gi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du modèle. xool ko sëriñ boo xam ne comme Tupac sëriñ boo xamante ne comme Tupac mook Tupac amul différence takk ay chaîne sor sa ay pain bu la neexee yenn saa nga def ay coquette jam jooy yenn saa nga jël fulaar takk sa bopp bi. xam nga nga ne yow serign nga quoi li senegal kep kep kep kep la am billahi wallahi wa taala xol ko ki, serign la ki ki serign la serign dina melni ki serign la yewul len ki seytaane lay liggéeyal seytaane lay utal ay nit yewul len ngeen top yalla ak yonentam yalla gis nga yow ma xiyaam kenn du am lay doo topp capitaine wala ñu mel ni ñoom ba yow ma xiyaam nga naan yàlla noo xaw ma woon c'est que cest dama foogoon capitaine maa moom moo ko lii lii non yàlla du la déglu parce que yàlla utaloon na la modèle boo roy nga bañ na yow doo roy modèle boobu keneen ngay roy bal sax ñii di roy yonent bi yow da nga leen di kaañoo di leen tooñ Sénégal ñu ne ay jullit lañ bu nit di pratiquer diine wam di di roy yonent bi ci nu muy soloo ñu naan ko yow xool ko dafay cëkkal xool kook sikkinam xool kook mbaxaneem di ko xas foofu la àdduna toll kuy roy yonent bi ñukay xass xas kuy roy Wally Seck wala ay tupak wala ay ekon ñu yëkkati kooku je persiste et je signe ñii seytaan li ñuy liggéeyal ñu yalla ce sont des alliés du diable mais bien sûr ku mën taxaw di tag Iblis bayam tag na fi Iblis Moustapha si tag na fi Iblis Almaktoum tag na fi Iblis moom mi capitaine tagna fi Iblis ban intérêt lañu am ci tag Iblis posez-vous la question pour lan ñuy tagg Iblis. tay bo leen waxe ñu genn xas Iblis duñ ko mës a def wallahi lazi man maa ngi défier mustapha si ak capitaine ni ngeen amé fit bay xas yalla, ak yonentam dama bëgg ngeen amé nonu fit genn ngagn Iblis duñ ko def. ñeme wuñ ko xalaatuñ ko genn leen ngeen xas Iblis ngagn ko comme ni ngeen di ŋàññee yonent yi bu ngeen kay def di am problème. duñ ko def mukk ñoom kay bu dara desul lu dul xas yàlla ak yonentam ak tëkku yàlla amul problème mais iblis no chaque fois bu ñuy wax ci iblis dañuy wax ci iblis comme si que iblis ku baax la comme si que iblis jàmbaar la alors que iblis du ku baax iblis ku bon la iblis dafa bañal yàlla iblis dafa bañal yàlla bi yàlla sàkkee aadama iblis yàlla ne ko sujjootal dafa bañ ndax lan rëy mu ne moom du sujjoot moo bañ du sujjoot ndax moom moo gën aadama yàlla moytu leen kii boobaak léegi yàlla di wàcce ay yonent diñu royloo yonent yooyu pour bëgg ñu texeloo safara iblis tam di def la même chose di tàggat ay ndawam di leen indi pour ñu koy xëccal ay nit yu ko yóbbu safara yeewu leen il est temps de se réveiller c'est de se réveiller tarixa yi sànq nañu sànq suñuy baay sànq suñuy maam sànq suñuy maamaati maam pendant plus de cent cinquante ans ñu nekk ci réew mi di woote di woote loo xamante ne ay fen la di woote loo xamante ne ni du dëgg yonent bi matali diine woom ba mu mat sëkk ba yàlla seedeel ko ni ko diine gi mat na ah ñoom ñu jóge fu kenn xamul ñëw rëdd seen yeneen yoon ba pare bëgg ko tuddee yoon bu jëm ca yàlla benn yoon kese mooy jëm ca yàlla te mooy yoonu siraatal mustaqim beneen yoon buñ la jaar loo xamal ni yoonu seytaan la doo gaaw xam ne yoonu seytaan la de doo gaaw xam ne yoonu seytaan la tànk demoo ba egg à destination xoolal leen ma seen seen ay logo ay logo yu maçonnique gis nga sect boobu noonu Moustapha si créé secte bu mu dox euh, bu mu jox doomam bu jigéen bi femme dévouée seen logo triangle la triangle lañ def logo capitaine Sy colisée de l'éveil triangle bu bu tourné bu inversé wu moom lañ def logo ba pare jël jant bi jël soleil bi def ko noonu ci kaw yéen a ngi gis ñi ay franc-maçon lañu ay sataniste lañu ay alliés du jaabul lañu li ñuy def ça n'a rien à avec l'islam authentique ça n'a rien à voir avec l'islam authentique xoolal ma almaktum ci kaw xoolal ma fu mu le soleil un symbole maçonnique triangle bi équerre bi xoolal ma ñii ay waay ñii bu len top, top topp leen yàlla bu leen leen top, ñii dañ leen di sànq ñii dañ leen di sànq li ma wax nii mooy dëgg moo am kep kuy nit képp kuy nit xam nga ni lii mooy am xam nga ni famille bi dañuy sànkaate ay tijaan lañ d'accord mais ci biir tijaan yaa la ñu dem créer beneen secte ci biir tijaan yaa lañ dem créer yeneen secte tuddee ko ay moustarchidine nag ay colisée de l'éveil ay femmes dévouées ci turu diine te dara du ci diine loge maçonnique yi di leen financé ñuy liggéeyal iblis di ko xëccal ay ndaw di sànq ndaw ñi di leen réeral champ de course dañ jël video vue du ciel xaw ma jël nga gis mbooloo bi coggalu xar yi man coggalu xar laa leen di tuddee والله ñu bari dalay leen ni Moustapha fati day jël vidéo bi yóbbu ci loge ne leen xol leen mbolo mi ngeen di gis ni yépp man lañ top financement yi di gëna ñëw muy gëna continuer liggéeyam yewu leen yewu jotna de yewu jotna yow ma xiyam kenn du am lay kenn du am lay képp ku la gëm lo yow ma xiyam mënal na la fa dara day fen waxul dëgg yàlla nee nañu yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal addu li wal addu yawma ma izin lillah jeexna kenn mënul fa bakkan mo fudul dul mënal moroomu bakkanam dara dara dara dara dara yewul ku nek sey jëf mo lay wuy ji sa bammel ak ak ak keroog yow mal xiyaam yeewul quoi ñi ils se font de l'argent sur le dos des sénégalais sur le dos des musulmans ils se font de l'argent capitaine ligéyul il a choisi la voie facile xalé bu ndaw mënoon dem ligéy ji mënoon na dem ligéy pourquoi mu préférer di woté mbolo té jangul pourquoi mu préférer woté mbolo té jangul jangul bu jàngoon sax warta woté mbolo woote mbooloo ci boppam moo dul dëgg du yoon woote mbooloo moo dul dëgg du yoon waaw këy nit ñi bàyyi leen ñu libre ñu dem topp alxuraan ak sunna moo gën nga leen di woo ci sa bopp wala nga leen di woo ci sa maam amul leen njëriñ